menace amul. ay ci ñu pour ñu xamul waaye mbaa mbaa mbaa def ma lu mbaa wax ma lu grave. Eh mouvance ah ñëw ci dernier euh, dernier point bi voilà volonté de réduction du coût des services de connexion xanaa loolu di ko tàccu de malal connexion bi cher na mhm. volonté de xool suñu téléphonie mhm. nu ñuy def souverainisme laal ko ba ñu moom ko au de ah, cher na mais ñu fexe ba suñu téléphonie ñu moom ko non en fait il faut euh, dama jàpp ni il faut euh, les sociétés nationales que nous avons mhm. il faut d'abord ñu fexe gën leen dooleel parce que il faut qu'on ait quand même parce que loolu dafa baax ci souveraineté mhm. boo xoolee lu mel ni Sonatel dañuy opérer en Guinée di opérer en au Mali di opérer dans la sous-région en Sierra Leone et cetera et cetera di mhm. def chiffre d'affaires bu am solo mhm. jàpp naa ni aussi coût internet bi c'est très très cher c'est-à-dire Trop cher, pour moi les les axes prioritaires les la véritable rupture mooy casser les prix nit ñi mën a jënd ceeb lu mhm. nit ñi mën a fay loyer bu yomb absolument parce que tu ne peux plus avoir dans ces parages deux chambres salon à moins de quatre cent mille c'est inadmissible et puis qu'est-ce qu'on fait avec les lois par exemple souvent on prend des lois on prend des décisions jël ay décret mais dans l'application on a toujours des problème pour man la population elle sera très très heureuse gis nga y'a des y'a des mesures très très fortes les meilleures mesures c'est les mesures qui impactent directement, directement. les hmm. parce que bu ñu ma wàññilee courant wàññil ma ndox hmm. wàññil ma connexion internet wàññil ma ceeb wàññil ma diwlin wàññil ma location mais su boobaa tu sentiras que les gens se développent parce que développement mooy nga am la capacité de faire face à des dépenses man bëgg naa dem Dakar paas yomb na ma bëgg naa lekk ceebu jën bu neex et ça xama am naa ay moyens yu ma ko defee et pour moi les véritables ruptures c'est ça maintenant il y des ruptures de principe li mu wax mm. c'est-à-dire le xam nga pas Assane Sank wax na ko nen le principe mm-hmm. mais le principe et la chose boo xamante ne boo kenn du ci déroger mooy le principe mooy li nit di jomb le principe mooy mooy li nga xamante ne dañ ko war a sàmm par exemple c'est bien de les questions de redevabilité mm-hmm. xeex guerre bi xeex corruption et cetera dellool askan wi li mu moom mais mais il faut que ça mène à quelque chose il faut que mu am un impact sur ñun ci li ñuy ci li ñuy dunde ak ni ñuy dunde mu feeñ ci transport bi feeñ à tous les points de vue parce que en fait le Sénégal surtout Dakar est, est l'une des les plus chères au monde mm. li ngay dépenser boo demee Paris presque moo ëpp li ngay dépenser boo nekkee fii Dakar ce qui veut dire que Dakar est une ville qui coûte très très, très cher, mm-hmm. c'est-à-dire tune ne cinquante mille boo ko yoree léegi léegi ñaari aller retour ñaari dugg fii ñaari dugg fa et cetera et cetera parce que il faut quand même que ce travail là soit fait mhm. et je pense que loolu c'est de très très bonnes mesures quoi mhm. et puis fexe stabilise une fois que c'est pris que c'est pris là parce que sous Macky Sall les gens ont dit wàññi nañ loyer mhm. même la dernière mesure sur le loyer qui a été prise kenn respecté wu ko c'est-à-dire finalement est-ce que le citoyen et bienveillant. Parce que l'État peut être très fort en évoquant des mesures, en prenant des mesures, en disant tel, tel, tel, tel. Mais si derrière le citoyen n'est pas regardant, parce que le citoyen est complice également de ce qui se passe. Si ah. l'État dit, oui, le citoyen est complice. Si l'État dit, on lutte contre la corruption. Mm-hmm. yow nga yéeg sa oto yoroo permis amoo assurance tu es obligé nga ger policier bi tu es contributeur il y a quand là où il y a un code ci location bi citoyen bi nan la ci ci location bi le citoyen dafa war a taxaw ne fayuma parce que état bi lii la wax. mais bu ko deful ñu génne ko. mais non mu dem ci mu dem gendarmerie. non c'est ça parce que le citoyen ne va pas jusqu'au bout. pour ça c'est ça il xam nga loo gis non loo gis dafa am sax. parce que fii ñaata nit ñoo fi boole. seen seen seen ki leen luwe. mais non mais ñu jug génne mais je veux dire parce que le citoyen n'est pas bien informé de ses droits. si le citoyen n'est pas sensibilisé par exemple nit bu la loué nga toog ñaari weer fayoo ko amul droit dàq la da nga war a toog ci kër gi pendant plus de six mois mais le citoyen qui le sait amul bëriwul mais est-ce que du mesure yenn yu ci ëpp dañ ko doon jël rek pour bégal askan bi wala mu nekk ay promesses yoo xam ni ñoom leer na leen ni du ñu mën a topp dama ne la dama ne la une mesure li mhm. ciy topp un président oui gis nga ni président di jëlee ay mesures ay lois noonu la citoyen bi comme ni ñuy surveiller le président pour le programme pour lequel il a été élu mm -hmm. le citoyen aussi doit surveiller dafa war a surveiller c'est-à-dire dafa war a ne mm-hmm. attends France ñemewuñu ñu ne wàññi nañ suukar paquetu suukar téeméer lay jar nga dugg di jënd paquetu suukar ñu jaaye la ko six cent parce que le citoyen est là il est sensibilisé par rapport à ses droits et il est il est exigeant il demande à ce que son droit soit respecté pour man taxawaay boobu noonu le citoyen mën a gunge état parce que état l'état c'est pas l'état c'est pas une entité à part c'est une association dans laquelle le citoyen est membre si l'état c'est une forme d'association citoyen bi c'est un membre il est contributeur doole sax bi état yor bay mën a doxal bay mën a defar tëli bay mën a am train de vie bay mën a am caisse noire c'est l'argent du citoyen donc le citoyen si l'état vote des mesures yoo xamante ne kii sont favorables pour le citoyen le citoyen doit être le premier surveillant le premier nit bi nga xamante ne mooy veiller à ce que cette loi là soit appliquée mais tu es là ton locataire t'impose nga ne woy su ma su ma génnee fu may jëlee kër. xaaral ma négocier et cetera et cetera. sa njaboot c'est difficile. oui mais ça vaut le prix parce que mais sacrifice boobu boo ko defee. c'est ce qui sax. du du loo xam ne par exemple danga nga naan ñàkk fay comme ni nga wax sànq. wala pour x raison rek nga xëy ñu génn xanaa xam ni cest à comme ni nga wax sànq dañoo ñàkk xam. suñu suñu suñu droit. est-ce que xam nga ni même cette loi là bi jëm ci bees bi. ni mu protéger le locataire. Mm-hmm. mais c'est incroyable. oui c'est-à-dire doo xam sax lan mooy expliquer sax ñu xëy rek génneel wala nangam mais li koy indi mooy ñàkk xam bi. ñàkk xam des fois ci ñàkk xam boobu ci la même bailleur bi di sukkandiku. parce que moom derrière am na ñu koy defal le travail. ñu ñu ñu dellusiwaat ci régime bu bees bi. tey bu ñu nee dañuy wàññi internet. waaw man ci ci lan la ñu mën a jaar. gis nañu ni que ni yaa ngi ko doon wax lool waaw man sonn naa de. internet non man man mosuma gis lii fi ngay liggéey am na wifi sa kër am na wifi li ngay dépensé ci internet mënuma la wax nu mu nit ñi dañu sonn mm. mais ci lan la ñu mën a jaar pour ñu mën a wàññi pour une bonne fois pour tout njëg yi nag laal nañ internet waaye am na yeneen njëkk yi nga mm. xamante ne malal tudd na ko mm. mais tey nan lañ ko mën a defee ci régime bu bees bi euh, bor yi nga xamante ne état bi am am na ko ak xaalis yi nga xam ne daanaka